ça. Je l'ai entendu dire, on me demande de la caméra, je l'ai entendu dire que c'est de son fait et de son gré qu'il a fait introduire dans la Constitution la limitation du mandat à deux loolu ñu ñëpp dégg nañ ko mais ba tey kenn ci ñun déggagul mu ne danaa def troisième mandat même si tout semble si prêter ñun nag la ñu jàpp mooy dañ koy xaar ba mu wax la mu waxoon bëgg ko soppi su boobaa waa Sénégal daañu def la ñu defoon xarnu bi xëy na du la ñu yoroon waaye même chose comme moom moo wax lii bind ko urbi et orbi mu wër àddina yëpp ne jooy dootu fi am dakkal na ko ci Sénégal nañ ko jàppe loolu on le prend au mot laaj nañ ko pour mu leeralaat nag mu ne waxatuma nii wii nii noonu mais pourquoi ngeen di ko laaj parce que moom nee na deux mandats dootu fi amati wax na ko bind na ko mi ngi ci suñu constitution nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs amul Ablaye amul kenn kenn laa wax du kenn koo xam ne mën na defati ñaari mandat yu tegaloo xamuñu mandat bu njëkk bi ñaata at la ba ca topp ñaata at la ce n'est pas notre problème c'est le mandat qui nous intéresse. yow sa xalaatu bopp la durée bàyyi ma eggale gi yow tam yow vraiment. d'accord allez-y allez-y <laughs> non mais ça fait vingt ans mu lay xaar sax. mais il n'a pas fini parce qu'il réserve il réserve quelque chose. <laughs> am na munition pour dire aux gens que un moment j'avais perdu la tête. moi je pense que vraiment beaucoup plus sérieusement que je tiens le président à ses mots dès lors qu'il a voulu inscrire dans la constitution. que nul ne peut plus faire de plus, nul ne peut faire plus de deux mandats à la consécutif cela me suffit amplement qu'il revienne maintenant le répéter vraiment il faut le tenir à ses mots et puis le laisser tranquille quoi juste un complément d'info par rapport à Awa Aïcha may naa la